ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi santaat bu baax suñu borom ci résultat yi ñu jot tey te conseil constitutionnel de kuréel gi Wara war a joxe joxe ko muy wane njeexatali élection bi ñu defoon le 24 février 2019 muy élection président de la république suñu borom ci mbaxam def na ba yàlla may na ma ci ndam ci walu résultat yi conseil bi confirmé nako kon coalition Benno Bokk Yaakaar candidat mo gagné di sant nak sénégalais yi d'abord ci sen taxaway ndax wane nañu ne gëm nañu sen système démocratique gëm nañu ne sen woote du nax saay te ñépp ñiy teewee élection bi mo xam observateur yi ci biir réew mi yàlla xam na ne ñu bari lañu woon parle de plus de cinq mille observateurs juróomi junni ñëpp xam nañu ne ci wàllu leeraayu élection ak jaar yoon élection bi jaar na fi mu waroon jaar yépp organisation bu mucc ayib la woon amul benn gàllankoor ak benn tolof-tolof loolu moo waral ma ne sénégalais itam seen taxawaay gis nañ ko ndax téeméer boo jël si ñu bind woon juróom benn fukk ak lu topp jóg nañu keroog dem wote ji ci jàmm ak salaam loolu nag dafa taaral suñu démocratie

te dinañ jàpp ne ñoom ñooñu bañ a bokk wooteel ma wooteel yeneen i candidat ni nga xam ne noonu la démocratie di doxee na leen leer na it danaa def jàngat ci vote bi ñu def lan moo waral loolu wala bokk lan lañu mere président wala lan la président war a def lu mu defuloon ñu taataan xalaat yooyu yëpp moo tax ma ne sama taxawaay tey en tant que njiitu réew mi ci kàttanu suñu borom ak bëgg-bëggu askan wi sama taxaway moy talalat loxo nag Sénégal yépp muy opposition bi moy force vive moy société civile ci loolu talana sax loxo ñaar ñima ma won te nek fi moy président Abdou Diouf ak président Abdoulaye wad ngir ñoom it ñu andi sen xalaat ndax yoron nañ réew mi ay dir am nañ experience am nañu xalaat xeyna na bu ñu toogee waxtaan du ñak ci li nga xam nit ñi jàpp nañ ne war nañ ko waxtaanee waat ñu mën ko waxtaanee waaye du tere ñu jàpp ne Sénégal démocratie la boo xam ne kenn mënu ko gàkkal ndax loolu mooy li am c'est une démocratie majeure boo xam ne amul dara dara loo xam ne am na lu mën a teg ci kaw Sénégal maintenant nag léeg-léeg nee nañu parrainage bi xëy na contrôle bi sévère na wala lii wala laa yooyu yëpp mën nañ ko waxtaanee ci kaw muy waxtaan boo xam ne bu ubbeeku la du am benn condition ni de la majorité ni de l'opposition mais ñu toog waxtaan xool lan lañ mën a avancer loo suñu réew su loolu weesoo it ma sant nag ñi nga xam ne ñoom laa dënkoon en tant que président de la république muy gouvernement bi organisation élection ba mu tàmbee ci ministre de l'intérieur def na liggéey bu rafet ndax yombuloon nous avons nga comme amul nous félicité circuit direction générale élection administration territoriale surtout administration territoriale muy gouverneur préfet ak sous-préfet Le Sénégal, Sénégal suñu système électoral en tout cas nous avons ñu Afrique système ndax système élaboré acteurs politiques yi ñu ngi ci coalition mais surtout les gi saytu leeraayu élection muy Sénat mu ngi fépp processus depuis inscription sur les listes électorales distribution des cartes bureau de vote retrait des cartes le dépouillement ci commission départementale bureau de vote d'abord bureau de vote fukki le bureau de vote am Tayit lepp luy saytu résultat yi justice moo ko tribunal donc muy commission départementale délégué cour d'appel ñoo fa ne muy commission nationale muy conseil constitutionnel bi nga xam ne nag mooy jël décision bu mujj donc loolu lu taaral démocratie Sénégal waaye démocratie dañ koy toujours gën a avancer loo gën ko euh, defaraat moo tax mën nañu waxtaanaat toujours pour gën gëna a jëmale démocratie bi ci kanam ne man sama ce que résultat may presse parce que depuis l'élection, yu grâce ak résultat yi instantanément ci bureau de vote mais kenn amatul benn jafe-jafe ci xam lu un élément de transparence bu am boo xamne presse bi tam joué nañ rôle bi ñu njukkalee len ko ndax ci euh, saa si fu 18 h jotee ñëpp dañu déglu y compris candidats yi seen bopp y compris administration bi parce que presse bi mo leen gëna a gaaw si si résultat donc lolu tam lu am solo la japp na waaye nak ci diggante xam résultat bi ak bañ koy wax dana dess ay ñet ñaari fan ñet fan xeyna lolu tam mën nañ ko améliorer donc war nañ mën waxtaan ci walu euh système électoral le système politique l'opposition, le opposition statut chef de l'opposition xool nañ ko si déjà sama d'accord on la constitution bi nga mon référendum bi lañ ko ci la ko ñu woté ko donc man bañuma lool kon lool nak lu ñu la ci dal maintenant que élection yi Euh, war nañ mën waxtaan aussi si lépp luy koom-koomu réew mi ak ressource réew mi amuñu si benn euh, xaar ma yàlla mën nañu donc tàllal suñu loxo pour que ñu waxtaan waxtaan boo xam ne njëriñu réew mi la loolu moo doon li nga xam ne tey bëggoon naa ko wax te ñu xam ne wàllu nag fa ñu jëm damay bàyyi ba waxtu def prestation bi jot ndax ci la mandat bu bees bi di tàmbali fii ba le 2 avril mandat ba ñu génn moom mooy dox à partir du 2 avril nak président bi ñu fal tey incha dana xeyna joxe ay xalaat ci doxalinu réew mi ci at yi ñu jëm ma ngi leen di sant yeen ñëpp di leen gërëm wasalaam.